lislaam feeñ na ci njàmbaar feeñ na ci waaye nangu dogal suñu borom ak it ñàkk na saxal sa diine feeñ na ci te loolu mooy jubluwaayu lislaam kon sëriñ euh, imaam Aliou Cissé ñu ñaan yàlla suñu borom guddal sa fan wéral sa jër waaye dañu njëkkante waxtu rek jox sëriñ Modou Thioune sëriñ Modou Thioune ku ne dégg na waajtaayu safar ku ne xam na bis bi li ci aju woon réew mi daayira yi fi nekk kuréel yi nan lañ ko waajal jërëjëf sëriñ Mbaye xam naa temps bi sax daf ñoo xooj waaye ñoo ngi sant yàlla rek di julli ci yonenteem bi di wane ne sant yàlla googu ñu Serigne Touba digal ñu sant ko yàlla suñu borom muy saa yu weeru safar tero ñu jàng alxuraan ju baree bari togg ay ñam jox néew doole yi dimbalante ci suñu biir def ay salaatu ala nabi yu bari def ay astaghfirullah loolu ba ñu weer yu teroo ba léegi daayira yi nekk ci diggante Serekunda ak Banjul ñu ngi ci ba ñu dëgmal ajjuma ji ñu jëm incha allah rabbi ci bakkaw kër sëriñ Touba gi war nañ faa wàcce yu yaatoo yaatu ngir ñaan jàmm ci réew mi ñaanal boroom réew mi saa borom may ko jàmm ba mu yóbbu réew mi fi mu bëgg ñiy màggal it saa yóbbu leen ci jàmm ñu del si ci jàmm te guddi ga incha allah bi danañ ko sant ca London daayira soppi sëñ Fallou ñoo koy def lii lépp nag sant Serigne Touba kon ñu ñaan mbokki julli ak mbokki taalibe yi ñu ànd ak yar ànd ak teggin dem ak jàmm ñëw jàmm te bu nu àggee lépp loo xam ne ay teggin la ab yar la ñu jéem ko faa te xam ne yoonu Serigne Touba yari du bokk ji di def leneen lu àndut ak lislaam lu duppoo lislaam bokk ji jërëjëf jërëjëf Serigne Modou Thioum mel na ni la in sàkkatum laa si daanakum indil nga ñu ko ne ku sant ñu dolli la Serigne Touba sant la santaan dumu taane kon dégg nañ waajtaay woowu Banjul noonu lañ koy waajal dimanche bi ñëw insha allah juróom-ñeenti waxtu ba juróomi waxtu daañ fa nekk jàng alquran jagleel ko Cheikhul Khadim waaye nag ku ne xam na ne fédération yi daayira murid yëpp Serigne Moustapha Gueye moo ne ci bopp bi ki topp ci moom di seen Njaay bi kilifa jotaay bi mu jox ko bi sëriñ seen Njaay lan ngay wax daayira asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen bokki taalibe yi ak bokki jullit yi ñu ngi nuyu ñëpp képp koo xam ne kii yaa ngi yeewoo ci réew mi ñu ngi lay nuyu ci baatu kilifa yi nga xam ne bii ñoo ngank yoonu murit ci réew mi mbay li nga wax lu rafet la ñi la jiitu it li ñu wax lu rafet la li nga xam ni bii rek moom la ñuy wax ci kàddu yi gàtt ndax waxtu wi moo moom moo demee noonu mooy bépp taalib bu fi nekk ak bépp jullit bu fi nekk nañ leen waaj ñu dem Tuubaa waajtaay wi nag am na fu ñu koy tënk fu ñu koy tënk mooy réew mi ñu nekk am na loo xam ne lii nañ leen ko yombalal réew mi ñu demit nañ leen ko yombalal mooy tegu ci ak jub moom la sëriñ bi soxla moom lañ la sant nag képp koo xam ne kii yaa ngi dem lépp loo xam ne lii réew mi soxlawu ko ñu ngi lay ñaan ngir jëmmi yàlla ak yonente bi ak sëriñ Tuubaa mi tax ñuy dem loole bu ko def na yombalal yoon wi ba nga xam ne dañuy dem ci jàmm dikk ci jàmm réew mi am na loo xam ne lii at yëpp dañ koy daj mooy di seet ñi nga xam ne bii dañuy mbubboo ne dañuy màggali te fekk ne dañuy defi loo xam ne lii borom magal gi soxlawuko rew mi ni nek soxlawuko Sénégal gi ñi dem soxlawuko kon lolu nañ ko tek ci suuf am ab yar ak ci teggin ak talib lépp lu ñuy tere nañ ko bay wéy ci ak jub la borom rew mi soxla fañ dem ci toubay ak djub lañu soxla ci alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Sëriñ Ndiaye kon jox suñu Abdou Touré mu yore kàddu suñ pap dem bu tejj jotaay bi. eh ganam ñu nuyo ñëpp. surtout ñi ñuy seetaan ñu ngi wax ci turi Pape Demba Diop xam ne moo fi nekkal Serigne Sidou Mokhtar Khalifa jonal de Mourid di ñaanal ñëpp Pape Demba ne mu ngi ñaanal ñëpp ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm lu ñu fa jàmm yàlla wala ñaan ñaan ko fa yal ñu ko yàlla defal. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Alaaji Baye Moustapha Dia ñaari kàddu ci mag ñi ñu daan waajale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز بركة شيخ أحمد بن بكر جاي sering mbay mag ku melni ni sëriñ ibrahima ndiaye nga xamni tay tey moy mooy kër alaaji cheikh diop nga xamni pap pape diop mi nga xamni tay mo moo yor baat suñ tubaab fa la ku melni ni mourid bawo nga xamni moy bayu aji fat bawo ak euh, borom këru sunu yaay ju bax di aji fat sam ku melni serigne dan dan diop ku melni aladi alaaji jaaji ñes ku melni serigne modou diop abdou khadir ku melni ni bàyyi ndjay ndiaye bàyyi diouf ak mag ñooñu nga xam ni ñoo seqoon yoonu murid alaaji maasaalum jabaat nga xam ni ñoo fi seqoon yoonu murid di ko taxawu ñoom bu bis bi musaa na ñëw dañuy lépp luñ amoon wala ñu mën ko dañ ko daan jëf ci bés bi dégg naa ci bàyyi alaaji jaaji mees mu nettalee ma ne ma màggalu Tuubaa su mosaan am ñoom oto bi ñuy bi ñuy jël sookoon la ñuy mottalee pour am oto bi mun a pees kon bu ñu yàlla dimbalee tey jii ba bu ñuy dem Tuubaa def ay sooxe ay oto oto yi oto kon day ci sunu biir wax ñu ngi dugg rek ci wax seeni Ndiaye mooy yar ak teggin ak sutura féer yi buñ ca yeggee nan ci ànd ak dal ànd ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñu jéem a déggoo ñoom ba dara loo xam ne dina sooxe dina fi am ñu ngi sant Pape bu Diop di sant jullit yi fi nekk yépp allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli jërë ngeen jëf thank you Welcome to your long-awaited program, Girl Talk. Girl Talk is designed to be a platform for girls and young ladies to share their life experience. I didn't have a boyfriend early, I'm not gonna lie. It's about how you combine them together to have the final look that you actually want. I ever find myself in that situation, I didn't say there wasn't no table. I do not know about the thing.